bi mu wax ne alhamdulillahi rabbil alamin nee na loolu mooy nu yeesal sunu cant sunu diggante sunu borom moom sunu sunu borom mi nu booleeg sëriñ Tuubaa di sant sëriñ bi moom mi sunu léppi tey ak ëllëg nee na di sant bu baax a baax a baax a baax ci tawfeex jiinu sunu boroom defal tawfeex jiinu sunu boroom defal muy amunu genn jublu gudul sëriñ bi ndax jublu sëriñ bi mooy xasdu li wàccillaahi gën nag bu baax a baax a baax ci tawfeex ji nu am muy ndollan lu rëy muy bokki taalibe yi nga xam ne feeñal nañu seen bopp ci tawfeex ju rëy ji ñu am mooy ñileen ko Cheikh Saalih tudde muy xees bu tarqiya muy kuréel bu mag bi nga xam ne kuréelu bu yéege la mu ne ni ko waxe woon ci jataay bu njëkk ba ca xisbu talqiya mu ne li mu waxoon mooy ni ko alquran waxe rek laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma raddadnaahu asfala saafilin ginnaaw sun boroom dafa bind doomu aadama mu mat sëkk waaye ci coobareem ak xereñam ñi nga xam ne daa mel na ñoom seen bët ci suuf rek lay xool nee na ñooñu dañuy doon ñi gën a sauvé ñi nga xam ne nag seeni bët ci kaw rekk lañ koy xool ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy yéeg rekk jëm kaw te dara du leen fakk lu dul ngërëmul yàlla ak àjjana rekk nee na Cheikh Saalix ci déggam akuk xamam akuk settantalam moo tax mu tuddi nag sunu bokk yi xisbu tarqiya nee na ñoom mel na ne kaw rekk moo leen tax a jóg gën a jëm kaw rekk ni ko Seex Saalihu junje woon nee na loolu feeñ na ci seenu jublu ndax sëriñ bi rekk mooy seenu jublu nee na jublu gi nag mooy waxtu wu ne ñu yeesal seenu jaayante nee na duñ ko yamale ci seen bopp dañ koy tàmbalee ci njaboot gi nga xam ne moo na ci suuf bëgg leen a ci jublu gi nee na loolu moo di lii nu njëkk a gis suñ daje bu baax bii muy gone yi tuuti yi tabaarakallaahu aaye ji ñu fi tare mooy cosaanu lépp nee na foofa la jaayante tàmbalee jaay seeni bakkan ak seeni alal te jaaye wuñ ko lenn lu dul amee ko ngërëmul yàlla nee na ndax dëgg la àjjana sax mooy seen waaye àjjana la muy neex neex ngërëmul yàlla mu ko dàq nee na kon nag noo ngi gën a sant suñu borom bu baax a baax a baax ci tawfeex ju nu am nee na muy tawfeex joo xam ne noonu ko am te mu jógee ci suñ bokk yii ñoom ñi nga xam ne dañoo yeesal jaayante gu njëkk ga wan ginnaaw lépp jublu sëriñ bi te jublu sëriñ bi mooy jublu yàlla te mooy xasdu li wàcci laa nee na lii nga xam ne suñ bokk Hizbut Tarqiyyah wane nañ ko nee na du dara lu dul yeesal ak jaayant rek ni ko suñ bokki Hizbut Tarqiyyah dafe woon ca fan yële nee na Hizbut Tarqiyyah nag benn kuréel rek lay doon ndax ñoo bokk jublu ñoo bokkit fu ñu jëm ñoo bokkit lu ñu bëgg ñoo bokkit seenu jaayante mooy jublu sëriñ bi nee na kon loolu dara mënta dox ci diggante bi ginnaaw ñoo bokk bëgg bokk jublu bokk fu ñu jëm loolu dara dadutul mën a dox ci diggante bi nee na dëgg la yàlla sunu boroom moo bind teral nu nee na sunu boroom ba nu bindee teral nu ba bind wala xadd karam naa ba noppi daawal butiku nag dinu teg ay nattu ngir bëgg rek nu xam sunu bopp xam bopp ba gën a wéral sunu jublu bañ a am genn jublu gudul yàlla kon nee na ni mu ko waxee woon sànq rek xisbu tarqiya tawfeex ju réy la ci noonu ñun njabootu sëñ Tuubaa gépp nag. ndax nee na ab soññ rek la ci nun Hizbut Tarqiyyah ab soññ la ci njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax nu gën a mën a àndandoo rek. di jublu sëriñ bi rek. di ko jéem a xam waxtu wu ne. ndax nu gën koo mën a dund nee na kon bokk yii bokk ci xisbu tarqee seen taxawaay bii nee loolu rekk la wone nee na moo waral sëñ Yuusu Jóob mais neenam moo ko jox ndigal ngir mu ñëw teewe jataay bii nee lépp rek ñu gën a xam ne ñoo bokk lépp te nag dara mënta dox ci diggante bi doye dik doomu aadama nag faw muy feeñ ci nun seytaane itam du toqi du tàyyi waaye ci tawféexi sëriñ bi doye dig doomu aadama mënta gàllankoor nituk sëriñ bi seytaane it mënu ca dara nee na loolu nag nee na alhamdulilah rabbil alamin ni mu ko waxee rek Hizbut Tarqiyyah tawfeex la ci nun ñun njabootu Sëriñ Tuuba ab soññ rekk la bu ci nun ndax la ci am solo mooy won gannaaw lépp jublu sëriñ bi rek gàllankoor lool. neen àdduna bari nay gàllankoor lool. waaye jóg. waaye jóg. jublu sëriñ bi muy dëgg ci yow. jublu sëriñ bi muy dëgg ci yow. dara dootu la mën a gàllankoor nag. nee na tegtal bi nag mooy nii ngeen ko defee. ak fi ak fi ngeen toll ci àdduna. mën a wan ginnaaw àdduna. mën a wan ginnaaw àdduna. te muy dëgg ci yéen. teewu leen a ànd ak seenum xel. teewu leen a ànd ak seenum nite. loolu lépp. tawféexal leen. loolu lépp yàlla tawféexal leen. bañ mën a jël taraangay doomu aadama. ba ngeen mën a jël taraangay doomu aadama. delloo ko seen borom. delloo ko seen borom. ndax doomu aadama suñu borom teral na ko ba noppi te moo ko wax teral na ko mu ne waaye loolu fokk doomu adama ji xam ne boroomam teral na ko bi noppi nga jooju mu wëlbati ko def ko ak jaamu yàlla ne loolu nag sëriñ bi mooy nañ ko mën a xame doomu aadama ju wëlbatiku teraanga ji ko sunu boroom jox sunu boroom gënal ko lépp mu fab teraanga jooje delloo ko lépp doyloo ko nee loolu sëriñ bi moo ko def nag ku kon nag ku bëgg dund sëriñ bi. il faut nga jaay sa àdduna jënde ko àlaxira kem kattan kem kattan nee loolu moo tax yéen Hizbut Tarqiyyah ngeen am tawfeex ju rëy loolu nga xam ne mënta ñàkk loolu nga xam ne mënta ñàkk muy jublu sëriñ bi te yàlla rekk tax muy dëgg ci nun wan ginnaaw àdduna daray àdduna bañati noo saf nee na loolu ci jublu sëriñ bi rekk lañu ko mën a amee mooy ki nga xam ne bëggul dara lu dul boromam ma ma sa nekk ci dara lu dul nekk ci boromam nee na dëgg la sax waaye nag loolu sëriñ bi da ko àndaale waaye loolu moo tax nag ak dundam mu feeñal ca loola dox ko ba mu jeex tàkk lim fi nekk ci àdduna sunu borom rekk la fi nekkal masu feetal dara moom sëriñ bi lu dul boroomam xanaa jaamu boroomam ak liggéeyal ko liggéeyal ko ci jaamam ñii ndax fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gisee gindi nit ñi ak wommat leen rek la fi nekke woon jëme leen ci seen borom kon loolu sëñ bi ba mu feeñee ba léegi ñu bari ci jaam ñi fëx nañ wuti ko moom sëriñ bi booba ba léegi nag nee na kon nag la ca des jëkkante ak rawante rek moo ci des gën a wan ginnaaw sa lépp wan ginnaaw àdduna ak li biiram talatoo sa bopp talatoo àdduna jublu sëriñ bi nee foofu la rawaate bi nekk nee na nag mi ngi fi te du fi jóg nee na kon dara desu ci nag njëkkante ak rawante rekk la bu seetloo tuuti daanu gën a xam ña nekk ca loola ne dëgg la sax ñépp ca nekk waaye nag rawaate moom dafay am nag nee na kon lii lépp rawaate rek la rawante rek la ci rawante bi rek la feeñe kon ci rawante boobu ci la xisbu tarqiya feeñe nee na kon nag yéen bokk yi yéen bokk Hizbut Tarqiyyah nee na kon wax ji kenn jiituwu ji ci nee na ndax da ngeen dal sunu xel xam na ne sax ngeen njëkkante ci sóobu yoon wa nee na loolu amul lenn lu nu ciy def lu dul kañ leen rekk nee na ca njaal benn nga nee na daa mbokkam moom doon waxal nee na muy waxtaan mbokkam ma ci yéen ci Hizbut Tarqiyyah nee na ba waxtaan sore ba mu jeex nee na mu ne ko diw li ma ci xam de moo di buñ leen mënta jiitu itam fu fu ñu toll nu tolloo fa ak ñoom nee na kon wax booba gàtt na waaye mën na sa xame lépp nee na mën ngeen cee gën a xame it seen bopp nee na am ngeen tawfeex ju waaye lu ngeen ko gën a xam nag doxin bi gën a woyof gën a yomb day taxit mu gën a gaaw nee na kon mi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare nee na amul dara lu muy wax di ko ci dolli lu dul na ngeen xam ne xam nan fi ngeen toll nee mi ngi leen di seeral rekk ne mi gën a yeesal ak jaayantem gën koo ànd ak yéen nee na kon alhamdulilah rabbil alamin nan góorgóorlu bu baax rek nee na wax ji moom mënta ñàkk waaye daanaka jërul baril waaye li mu laaj daal nee na sóobu li mu laaj mooy ak tàlladi rek nee na buntal dara lu dul suñu borom bu ci boole dara lu tal alaxira kon talaati gi rek moo ci am solo ci gàttal rek nan góorgóorlu bu baax gën a sóobu bu baax a baax nee na bun tal dara itam bun talul dara rek dara du mën a dog ak li ndog yi bari bari bu nu dara lu dul sëriñ bi dara mun noo doon kon nag noo ngi dollee gën a sant suñ boroom bu baax moom mi nu baleeg sëriñ bi sant sëriñ bu baax moom mi nu fàggul lépp lii lépp fàggute bu sëriñ bi rek nee na nan ko xam bu baax nag te gën a feddli laxasaay yi ginnaaw ban gën a yeesal jaayante yi nee la rek moo ci am solo kon jërë ngeen jëf nee na gis na taxawaay bi bu baax nee na nii rekk la ko bëggee nee na xam na itam yitte ji nee na gis na ko bu baax a baax nee na pastéef bi itam dañ koo gën a xam rek waaye moom rek la xam ci yéen kon nan góorgóorlu bu baax a baax rek ni ngeen ko defee tàmbalee ko ci gone yi tuuti yi ba li nekk ci yéen ngeen digal ko ci biir gone yi nee na loolu liggéey bu rëy la nee liggéey bu am njariñ la nee loolu yéen a ci waaye jëme leen ko kanam rek ndax du dara lu dul sant yàlla ci li nu yàlla defal suñu digg ak sëriñ bi te yéene ko nag kon ko bokkal yéene ko nag ko jullit war nañ koo yéene ku ko bokkal war koo yéene ko dib jullit nee na ko nii rek la demee ite ji jëpp taxawaay bi na noonu rek la dem noonu rek la ne feet li laxasaay rek yeesalu jaayante rek kon gën a fëx rek gën a suubu yoon rek bañ a geesu bañ a taxaw nee na mas naa wax bu jëkk ca xel bu tarxee ne daa waxoon ne yoonu yàlla danginu la laaj nee na danginu nag mooy wéy rek bañ a wut àndandoo waaye loolu kenn ku ne loolu moo war a nekk ci yow mooy tax nag dana nirul ne sax da nga wéet waaye déedéet doo wéet ndax boo sóoboo yoon wi dongali sa laxasaay bu baax dongali sa laxasaay bu baax fas yéene wéy doo tal dara doo tal dara waaye nag doo wéet am na ñu mel ne yow na ñu yow ñu jóg ne yow na ci sa ginnaaw di la jéem a dab am na ñoo xam am na ñoo xam ne it ñu ngi sawet jéem a dog yoon wi ànd ak yow jéem am na itam ñoo xam ne am na itam ñoo xam ne ñu nga jiitu ci sa kanam moo tax nag mais loolu moo tax nag doo wéet doo wéet waaye nag du la tee nag danginu te dem rek nee na kon noonu rek la rek la na cant gu rëy rëy moo fi nekk ak xel mu dal mu ne ba leen dana bokk ci ay ñaanam ci xeetu ñaanin wi bokk na ci ñaan yàlla na yàlla baral seen i kem nee na loolu rek lañ koy tëjee nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lépp leer na jot na sëkk mat na sëkk léegi bu ñu teewloo bu kenn jóg kon na ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan te bu ñaan bu ñëpp ne kenn ku nekk toog fu nga toog bu kenn jóg